voilà dafa mel mi ngi noonu. waaw waaw waaw fii xam nga. taxawaay bi. waaw ah, combat bi li gën a di problème bi. Hmm. Ah, Tapha bi. waaw taxawaay bi mu taxaw dafa jub. Hmm. yaa ngi dégg. boo bëggee say tànk am doole sa déplacement gaaw. Hmm. dangay ngay fléchir sur les jambes. maanaam jambes yi da koy fléchir. toog tànk yi. mais boo taxawee jonn nii dangaa tegu. tegu ak taxaw du benn. taxaw moom mën ngaa taxaw nii rek. parce que boobu benn baaraam mën na la déplacer. Mm. mais bu fekkee da nga fléchir les jambes toog ci tànk yi. Mm. dégg nga fukki baaraam mënu laa déplacer. Mm. loolu nag moo am ci Tapha Tine fii. benn ñaareel ba. dégg tànk bii que kii jubal. ma maanaam euh, kële. ama seen ama seen. ama seen tànk bii mu jóg moo freiné bëri kii. waaw teel teel teel taxaw taxaw. taxaw tam tam tam. naareel ci jàkkaarloo bi ci wér yaa ngi dégg parce am ma kii. nu mu doon ci Tafatine. li tëj bëreem démb yëpp nga xam ne bëre bi ki ak si fi mu ak si ak mu jël ci ko yi mu jël. Mm-hmm. pied droit bii kii teg. comme mm-hmm. ñu mënee arrière tuuti rek nga xool ñu ko jàkkaarloo bi. jàkkaarloo eh, arrière jàkkaarloo moom la dafa mel ni waaw voilà. voilà gis nga jàkkaarloo bi pied bii kii teg nii. kii teg droite kii teg gauche. Mm-hmm. yaa ngi dégg. am Tafatine gauche la dugg la teg. yaa ngi dégg. kii droite la teg. ci bëre. ci ñi jàpp xam nga ne tànk bu la jub ak bu la jóor tafaatin koom bi bi ko parce que day kore gauche ñëw ak uppercut droit bu tegee kii droit mënu koo kor mënu koo kor jamais léegi nag loolu moo tëj bëreem ba nga xam ne bii coup bi mu ci jël mu jël ko bi mu jëlee coup bi tamit euh, kii tamit fii am na seen man su ma doon moom du ma du euh, kii du nekk écran sama kanam dégg ma ma ma moom en face déplacement latéral lay def de trois pas de côté. Mm-hmm. dem pas un deux trois. Mm-hmm. un deux trois. Mm-hmm. léeg nga mépp mu defee da ngay soog a taxawaat déplacé waat. yooyu ay ay njuumte la yoo xam ne yi. da nga koy bëri ubbi ko ci biir bëri bi. mais parce que ponkal bu taxawee sa kanam. foog nga joom ko juumloo. soo ko juumloowul rek. pour nga daan ko jël bi nga bëgg doo ko am. waaw parce que waaw kilo pour doole sur le fab da nga koy juumloo rek. da nga koy juumloo moo tax fi mu ne nii dégg nga ama seen. man su ma doon moom laa wax de. déplacement un deux trois. léeg-léeg nga miime un. deux troisième bi nga defe da ngay dem nga dugg ak sa arrêt de gauche. wala sa arrêt de droite bu fekkee pied droit ngay jiital. loolu man gis naa loolu laa gis foofu. yaa ngi dégg. ñu continuer dem. ñu dem avancé tuuti cong ba ñu mënee wane waaye tamit paa bi suñu euh, papa ji euh, sénégalais gis ndax li muy euh, am na solo. voilà voilà léegi fii gis nga ko gis ni muy jéem a te te téyante baaraam voilà gis nga téyante nañu. baaraam xeex fii dóorante perkir fii nag moom. xam nga. ku ne day jéem a dóor rek. waaw ku ci njëkk a sa morom. te ku ku boo xam ne bii maanaam laal nga point sensible bi day dem teer. Mm-hmm. day wàññiku. Mm-hmm. loolu moo indi kii bi. Mm-hmm. loolu moo indi euh, kii bi nii voilà gis nga fii. demal ba fi mu sukkee. mu sukkee nii. waaw gis nga bi mu sukkee nii. ama seen kaw nii. waaw ama seen da doon sulli wax rek dóor ko dënn. parce que fii ak moom fii sama xam-xam laa wax de. waaw Tapha Tine ñàkkoon na. waaw. parce que comme moom dem na teel ba sukk na benn tànk bi dem na mais beneen bi te teguwul beneen bi lemuwul. moom mooy dem ngi ci kaw gin ginnaaw waa ji. dënn bi nga koy bës. ràcc tànk ba ca ginnaaw. maanaam sa pied gauche bi xam nga moom euh, ki pied droit la teg. pied droit day ci gauche bi. dégg daal di sulli wax bi dóor ko dënn. wala mu ci ñaar tànk yi. daal ko sulli dóor ko dënn mu toog. foofu bëri bi jeexoon na tànk. bëri bi jeexoon na comme avancé nañu vidéo bi am na fu ko Tapha Tine jàppee. Euh, ràcc ñaari tànk yi waa fii moom. voilà voilà fi mu Tapha Tine ci jàpp ñaari tànk yi ñëwal foofu. arrêté avancé la tuuti ñu. waaw avancé comme ñu xool am na fu. Tapha Tine génn maanaam fi fi fi fi am seen jàppe tànk bi. waaw fi am seen am na fu am seen jëlee tànk bi. waaw waaw fii la demee ardo nag. voilà fii la demee ardo dañu taxaw si ardo bi tuuti la tant que comme di ñu avancé vidéo bi tuuti euh, ñu egg fi ñu ko jàppee ràcc ñaari tànk yi. waaw euh, ardo bi ndax bett la. non non du ma bett parce que bëri dóor lu ne am na ci. Ah. dóor mu daanoo nga ca. Mhm. dóor mu gaañoo nga ca lépp nga ca dañ ne bëri dóor. Mhm. bëri dóor kenn lu ne mën naa feeñ. lu ne. Mhm. ba ardo kii mënoon naa dem ardo. ama seen mën naa dem ardo kii mën naa dem ardo. waaye nag ardo bu ama seen yóbbu kii. yóbbu tafaatin bett na ñu waaw ah, bett nañu bari. waaw man de bett na ma. ke bett na keneen. parce que njool ak ndaam ni bu ko sutee. Ah. bu fexee mën na yóbbu ko ba mu dem ardo. ah loolu bett nañu bari. waaw parce que loolu mooy wane am tafaatin. waaw gar tamit na ko defaraat. waaw. Mhm. gardam da ko def parce que xeexu kor la mhm. mais arrêt de gauche bi pour mu mën koy dóor loxo bi jub. Mhm. foog muy fléchir jambe yi. jambe yi foog mu fléchir mu man a tokki tànk yi. di lancer ay arrêt de gauche bi gaaw. mais su fekkee dafa taxaw nii lu ko mën a lancer. waaw ah, yéen ñi ma seetaan kay xam na ñi ka jaar ci boxe wala ñu jaar ci arts xam nga ne pour nga mën a dóor kuu bu dal foog nga toog ci les bu mën a jam gauche bi mu dem ak garde bi fii jam kii mu dem kii dafa war di dem mu gaaw comme les. si tak tak tak mu gaaw yaa ngi dégg lu baax tak tak dafa war a gaaw. Mm. mais loolu day fekk nga fléchir les jambes. Mm. mais bu fekkee tànk yi dafa taxaw jub nii. Mm. doo ko mën. taxaw tànk ni jub nii laaj sa gauche. jamais ci àddina mënul nekk. waaw loolu nag xam naa lu muy war a defaraat la. Ah, léegi te euh, parce nit du mat am na loo xam ne war na ko defaraat ci biir carrière am. Mm-hmm. defaraat ko parce que. daal fi la ñu jàppante. waaw fi la ñu jàppante. waaw fi fi fi kii bëtte ba jàpp tànk bi. waaw parce que. kii nu mu tuddati dafa euh, kii. waaw ama seen. li ma la wax rek ci commencement de déplacement latéral bi rek. Mhm. la doon def déplacement latéral déplacement rek la war def ñëpp mhm. xam dem dellu si waat mhm. bëgg bu gis buntu door a dem. dëgg la waaye tëb dem rek bu ñëwee waa ji da koy capté bu ko capté du rëcc. fii fii Tapha Tine am na ñaar ngem mais. mais ama seen jàpp na tànk bi. voilà mais jàpp na ngem bi. mais ama kii da koo njett. tafaatin tafaatin da koo njatt. Mhm. xam nga poids mhm. su ko dóoree ci dënn bi daal di rasu ñaar tànk yi. Mhm. ah foofu nag day day mel ni ah. immeuble bi nga yenu. waaw ah, doole feeñ. foo yenn immeuble da doole ji du feeñ. dara ji day feeñ. fii ne mënu cee def dara. waaw fii nii. trois appui. trois appui la daal def. gis nga trois bi taal ko. waaw ba a am quatre appui. waaw dégg gis nga tànk bi mu sukk nii. léegi nag rasu boobu. léegi nag moom ci boppam. dégg da koy daal lippi. kan ma seen. déedéet tafaatin dafa boo lippi. Mhm. parce que Tapha moo nekk nii ci kaw. waaw ma nekk ci dégg nga kële nga ca suufam. léegi mu ngi ci danger. Mhm. léegi xam nga nu muy def. Mhm. day indiwaat tànk bi pour mën a am appui pour mën koo lippi. loolu la biir bëre am na ko doole boobu. ah kay. central bi la yëkkatee boo yëkkatee ndigg. waaw def foofu day yomb. yëkkati ndigg. bu téye ndaw Tapha Tine mu téye ñaari ñaari ngembam nii. sikki ne nii bu ko lippee day jóg. far heureusement mu jóg mu tëral ko mu tëdd mu tëdd kos mu tëdd benn yoon macha allah waaye mënoon na ko lippi tamit mu jóg mais loolu lépp jëlu bu soxor la waaw te jëlu bu soxor jaru ko mm-hmm. daan noo mën a daan rek daanal mm-hmm. da ngay daan rek génn ci mm-hmm. waaye jéem moo soxorootu koog ma def koog nii ma daañ loolu mën nga caa am defar sax far waaw ah. nga caa mën nga caa am defar xam naa ah. daaneel bi mooy ni nga ko daanee eh, naa suñu technicien yi voilà nii waaw gis nga ni nga waaw fii nii waaw dafa jàpp ñaan ngeen bi écarté tànk yi daal écarté tànk yi daal ko fàq mu dugg ci biiram xam nga léegi day ñëw nag pour jéem koo buddi nag yëpp ko buddi boobu nag. foofu tamit kii am na fa benn sens boo xam ne bi bu doon téqkat mm-hmm. mën naa jéem a am tànk yeeg yooyu jéem a tànk waaye loolu moom mm-hmm. euh, mu ngi ci danger ba pare daal te fi mu ne lii pour mu gën mm-hmm. ci ci dina jafe parce que Tapha Tine mu la ëmb ci biiram ba pare téye sa ñaari fees yi ñaari ngemb yi téye ba mu dëgër ah, waaw bu fu bu fu doo nga ñàkk bu fu gis ni nga ko njatee nii njate bi dafa dafa am doole am na sax fu ëmb seen mel ne luy këf wax bi noonu. waaw waaw da koo jàllale parce que da koy da koy tubaab mu tëdd xam lu ko war a. parce que foofu am na seen loolu rek la fa dese. Ah, loolu mais du jot tànk yi. Mhm. xam nga njool la. waaw gis nga mu ràccee tànk bi nii. du jot tànk yi. Mhm. benn tànk bi mu jàpp rek la mën a jàpp. Mhm. te su ko wóoree dënn bi. te Ousin. dinaa la wax leen de. ak ah. yéen ñu ma si daan gis nga bëri ponk la gën a metti ci àddina ma ne loo travailler travailler loo condition condition loo entraîner entraîner boo entraîner ba mel ni miir bii billaay benn contact deux minutes deux minutes dalante rek rek nga xam ne que boo gisoo gréco-romaine ak lutte libre bi ñuy def nii ak lutte boo def mhm. compétition te bu dee international cinq minutes la mhm. bu dee yenn comme match match yi kii combat yi ndaw yi mhm. ay trois minutes la lu tax tubaab yi di ko trois minutes lu tax tubaab yi di ko def cinq minutes wala trois minutes nga xam ne soo xoolee rek loolu nga xam ne condition ci boppam ci bëri ponkal moo jafe. Hmm. macha allah moo tax ku ci amul condition. Eh, ma di leen xalaatal ku ah. ciy bëri. Ah. sa gàllaaj yu bëri yeeg téere yu bëri. Ah. amu ci solo. Hmm. la ca gën a am solo. Hmm. entraîneur boobu ko nga mën a bëri. am entraîneur bu baax. seet li nga manqué mu liggéeyal la ko. loolu boo ko defee di nga ciy génn yu bari. macha fi la fi mooy defet bi fi la koy daane. waaw soo ñu avancé toujours rek bi waaw gis nga da ko weñ rek. daal koy tër mu tëdd. waaw waaw fekk bu non bëre bi fi mu jeexee. waaw mooy bi mu duggee ba jàpp tànk bi am ba ama ba tabaati mbaar ko. tii sëq ci géej yi bu déyee ba mu dëgër. Mhm. rasoon ak sànni ñaar tànk yi. Mhm. ah jotam kooku bëri bi jeex na. Ah, waaw ba mu ràccee rek la lamb waaw ba mu ràccee rek lamb ji jeex tam. lamb ji jeex ama fi mu amoon sens. mooy ba mu ko ci ko bu jëkk ba. boobu moom bi bi ba tabatin sa kii sa koy benn tànk bi. Mm. mu féete ko kaw. Mm. day dóor dënn rek su li wax wi yëg ko. Mm. loolu rek bëri bi jeex foofu tam amoon na fa loolu. Mm-hmm. mais loolu bu ko fa rëccee. ba ñu ñëwaat ci lu mel nii. moom kon kon nga xam ne bal bi tourné na. waaw nga xam ne bul bi tourné na. waaw <laughs> ah. <laughs> macha allah papa ñu euh, bàyyi la nga delluwaat sa sa place. Ah.